jërë ngeen jëf si seetaan bi ngeen a seetaan QTV ak déglu bi ngeen a déglu Q Radio ñu dalal leen si seen jotaay bu mag bii di jotaayu xibaar yi ñu rek daal di fésal li nga xam ne moo di boppi xibaar yi. ki ñu xamee si rek daal Abdoulaye euh, mbub nga xam ne daal euh, soldaar la woon bokkoon si banqaas si takk der bi ñu xamee si Gambie am foosis génnoon àddina si fan yi wesu si keroog talaata nag lañ ko jébbal boromam si bàmmeel wala sek yi nekk foofu si diwaanu li nga xam ne moo di Joswang si rek teewaayu ay kilifa yu bëree bëri bokk na si vice président Mohamed Bias Diallo teewoon na nag li nga xam ne moo di daal euh, dëj bi dinañ ko yaatal si biir xibaar yi. Ministry of Higher Education di rek banqaas bi nga xam ne ñoom lañ dénk njàng nag daal mu mi amal nañ nag ab ndaje boo xam ne dajale nañ ci ñi nga xam ne ñu ngànk daara yu kawe yi nga xam ne ñu ngi fii si biir réew mi amal nag ab waxtaan lu aju nag si rek wàllu li nga xam ne moo di jàng ak li nga xam ne moo di jàngale dinañ ko yaatal si biir xibaar yi këru liggéeykaay bu mag boobu di yëngu si rek wàllu jokko ak jokkalante di rek daal Qcell ñoom nag daal am na nag daal lu bees loo xam ne daal jagleel nañ ko ñi nga xam ne ñooy war a dem nag daal di aji ji ni ki rek daal ren pour rek yombale leen seen wàllu li nga xam ne moo di jokkoo ak li nga xam ne moo di daal jokkalante bu fekkee daal ñoom ujaaju yi nag daal dem nañ ci li nga xam ne moo daal dëkk yu sella yu di rekk daal màkk ak li nga xam ne moo di Medina dinañ ko yaatal si biir xibaar yi yi ak yeneen gannaaw bàkk bi ñu daal di yaatal alxames la fanweeri fan yi si weeru mai atum 2024 di atum ñaari junne yi ñaar fukk yi ak ñeneent ñu dalal leen si seen jotaay bu mag bii di jotaayu xibaar Ibrahim Khalil Gueye moo leen di yaatalal xibaar yi ñu rek yaatal li nga xam ne moo di daal xibaar yi moom ki ñu xamee si colonel Abdoulaye mbub ap soldaar la woon bokkoon si banqaas si soldat bi ñu xamee si Gambia am forces génnoon àddina si fan ñu weesu keroog talaatala lañ ko jébbal li nga xam ne moo di boromam si rek bàmmeel wala sek yi nekk foofu si diwaan li nga xam ne moo di Oldjosuwang si rek ay nag daal junney junney li nga xam ne moo di ay nit yoo xam ne daal woon nañ ap dëjam bokk na si ki nga xam ne moo di vice président Mohamed euh, B.S. Euh, Diallo moom colonel Abdoulaye euh, Mbuub nag xam ne nañu ko nag ràññeeku woon la si rek daal li nga xam ne moo di banqaas bi nga xam ne fa la doon liggéeyee di rek daal Gambia am force yi moom nga xam ne daal moo di daal Abdoulaye Mbuub mii nag daal xam ne nañu li nga xam ne moo di génnam addunaam nag daal daanaka nag daal lu bette la gannaaw bi nga xam ne ab nag daal feebaru gàtta moo ko nag daal di dal nag daal mu nag daal mujjee ñàkk li nga xam ne moo di daal bakkanam bakkanam moom nag xam ne nañ rek daal li nga xam ne moo di ni nag daal génn àddina bi nga xam ne génn na ko àddina daal ñu bari la bett bokk na si tax bett na sax ki nga xam ne moo di njiiti réew mi di président Adama Barrow gannaaw bi nga xam ne daal moom njiiti réew mi daal daal xam ne nañu sax daal daanaka bu yàggut sax gisee woon ak ki nga xam ne moo di colonel Abdoulaye Mbuub mi euh, moom colonel Abdoulaye Mbuub nag xam nañ ne mu ngi juddu keroog juróom benni fan yi si weeru auguste atum 1977 foofu si diwaanu Banjul moom nag daal si rek wàllub liggéeyam moom nag daal euh, nekkoon na commander of taali yoon euh, si rek daal euh, si rek daal beneen tamin banqaas boo xam ne tamit wala nag beneen nombal tànk boo xam ne nag daal yore woon na ko moom ki nga xam ne moo di Abdoulaye Mboob mi xam le nañ ne euh, moom nag keroog juróom-ñetti fan yi si weeru février atum iya 2000 ñaar fukki at ak ñeneen si gannaaw daal la daal di bokk si banqaas si takkader bi ñu xamee si Gambia Armed Forces bokk nak si li nga xam ne moo di intake 23 moom nag daal xam ne lañ nag daal daanaka lu aju si rek wàllu bi nga xam ne moo di ab maqaamam si rek banqaas si takkader bi ñu xamee si Gambia Armed Forces wax nañu si rek daal atum year 2008 nag daal lañ ko jox ndombal tànk bi ñu xamee si rek lieutenant euh, gannaaw gi nag xam nañ ne daal nekk na lieutenant euh, colonel si atum year 2022 moom ki nga xam ne moo di nag daal Abdoulaye Mbuub xam nañ ne daal si rek daal lu yàggu daanaka weer wi nga xam ne moom lañ génn ko sax daal yokkalaat li nga xam ne moo di daal mak maqaama mu nag nekk li nga xam ne moo daal ab nag daal euh, colonel lu aju nag si rek wàllu nag daal tàggatam si rek li nga xam ne moo di bànqaas bi nga xam ne fa la doon liggéey xam nañ ne daanaka am na ay daara yu bëri yoo xam ne jaar na fa bokk na si nag euh, daara ji ñu xamee si Spartan Spartan College euh, ak tamit li nga xam ne moo di yeneen li nga xam ne moo di daara yoo xam euh, di Ukraine Ghana foofu na fa am na tamit yeneen si li nga xam ne ay nag daal lijaasa tamit yeneen si li nga xam ne daal ay nag daal lijaasa tamit yoo xam am na ko colonel nag daal euh, Abdoulaye Mbuub mi xam ne daal daal daanaka lijaas yu bari daal dajale na ko si rek wàllu nga xam ne moo di liggéeyam ki ñu xamee si colonel euh, docteur Moussa Ka nga xam ne moom xarit la xaritu benn doomi ndey la si rek ndem si yàlla si colonel Abdoulaye Mbuub mu daal mu ngi nag daal fàttaleku xaritam bi di rek Abdoulaye Mbuub ne daal nit la koo xam ne daal ku nag daal joxoon gëddal liggéeyam la ku buggoon lig euh, réewam la te nag daal julit ju nag daal wér la te nag tamit nag daal nag daal ab way jur nag daal bu baax la si rek li nga xam ne moo di daal njobootam moom colonel docteur musa Ka di xarit di si rek ndem si a si moo di daal nag daal na ko te daal dina wéetal képp koo xam ne daal xaritoon nga ak moom ki nga xam ne moo di defense minister Serigne Modou Ndiaye euh, moom it nag daal dina wax ne daal euh, tiis daal dal na si kaw banqaas si takkatar bi ñu xamee si rek daal Gambie en force yi mu nag joxe seedeem daal seen naataango bi di colonel Abdoulaye Mbub mi nag daal moom nag ku yaru woon la te ku amoon xarañteef la si rek wàllu bi nga xam ne euh, moo di daal liggéeyam mu ne daal réew mi ñàkk na waaye nag banqaas si takkar bi ñu xamee si Gambie en force yi tamit nag daal dina ñàkk bi nga xam ne tamit ñu ngi daal amal ab fidaaw si rek Fahad Mossi diwaanu Banjul vice président Mohamed Bias Diallo ak ki ñu xamee Ba ak eh, daal imam Moustapha Diallo ak tamit imam ratib alhaaji Cerno Aliou Maska ñoom ñëpp nag daal joxe nañ seen ay seede jëmale ko si ndem si yàlla si colonel Abdoulaye Mbub ne daal eh, du rek daal eh, ci liggéeyam la joxoon ciram waaye nag daal diineem bi nga xam ne moom la nekk di diine islam tamit joxoon na ko cir lool jox cir li nga xam ne moo di liggéey gi nga xam ne réew mi nag daal dénkoon nañ ko ko muy ta ba tax na daal ñoom kilifa yooyu sàkku nañ nag daal ne daal ñu ngi sàkku yeneen takkader yi nañ nag roy rek ndem si yàlla si colonel Abdoulaye Moussi rek wàllu nag daal jox cër bi nga xam ne moom la jox cër liggéeyam moom jiiti réew mi président Adama Barrow nag daal moom it sol na ay dàllam dem nag nemmeeku ji njabooti ki nga xam ne moo di ndem si yàlla si colonel Abdoulaye Mboup mi nag daal moom jiiti réew mi daal dem na fa joxe li nga xam ne moo di ab njaalam daal di nag eh, jox eh, eh, jébbal ab njaalam li nga xam ne moo di daal njaboot gi te nag daal wax tamit nag daal ñu gën a ñaanal ki nga xam ne moo di daal aji ki nga xam ne moo di daal jiitu bi si rak ab nag bataaxal boo xam ne moom it nag daal fisal na ko moom ki ñu xamee si looya Ousseynou Dabo jiite parti parti bi di United Democratic Party moom nag wax na ne ki nga xam ne moo di colonel Abdoulaye Mbuub mi nag daal euh, daanaka nit la woon koo xam ne daal ko joxoon cëram li nga xam ne moo di daal euh, liggéeyam la te nag daal daanaka euh, nag daal liggéeyam nag daal caaxaane wut ko bette na daal ki nga xam ne moo di Ousseynou Daabo di lawyer Ousseynou Daabo di daal si turi parti bi di UDP ak waa réew mi ñu ngi ñaanal aji jiitu bi moom colonel Abdoulaye Mbuub yal na ko suñu borom yërëm ak bépp aji jiitu ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar Ministry of Higher Education di bànqaas bi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu njàng mu kawe ñoom nag daal am na ab ndaje boo xam ne dañ ci nag daal dajale ñi nga xam ne ñoo féete si rek li nga xam ne moo di daal daara yu kawe yi waxtaan ak ñoom lu aju si wàllu njàng ak li nga xam ne moo di daal jàngale li nga xam ne moo nag daal sooke nag daal waxtaan bi mooy nag waxtaanee li nga xam ne moo di njàng yi nga xam ne moom lañ amal si li moo di daal daara yu kawe yi li moo di njëm kanam gee jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkuwale si rek li xam ne moo di wàll woowu lañ doon nag daal di waxtaane si li nga xam ne moo di daal ndaje mi demb ba yore ndombal tànk bi nga xam ne si deputy permanent secretary admin and finance foofu si education ministry wax na ne li nga xam ne moo di daal euh, mbir mi nga xam ne moom lañ amal nak daal euh, ab nag ndaje la boo xam ne dañoo nag waxtaanee mbiru nag daal njàng nag daal euh, mu kaay mi seet daal naka lañ ko gën a daal di ñoŋale gën ko nak daal di yaatal yombalal ko tamit ñi nga xam ne ñooy sàkkoo xam-xam si li nga xam ne moo di daal daara yu kowete nag wane ne bi di def seen kéem tolluwaay li nga xam ne moo di daal kattan mbir moomu nag daal ñu gën koo nag daal di jëmal Emily Sarr national consultant la for the gender euh, scorecard project moom mi nag wax na ne li nga xam ne moo di jotaay boobu nga xam ne moom lañ doon amal nag daal jotaay nag bu am solo la boo xam ne bokk na si li nga xam ne moom coo nag ak ñi nga xam ne ñoo ko teewee woon li nga xam ne eh, moo di daal eh, jafe-jafe yeeg jëm kanam yi nga xam ne ñu ngi koy jànku wante si rek wallu njànga nak daal eh, mu kay mi ak tamit yan pexe la ñu ko war a nag daal di tëral pour rek daal gën a nag mbirum nag daal njàng nag daal mu kay mi bu ñu sukkandekoo si li nga xam ne moo daal ay kàddoom Mick Alfonso nga xam ne moom uh, advisor la si Commonwealth of Learning moom nag wax na ne uh, mu ngeen nag rafetlu li nga xam ne moo di daal uh, ndaje mi ne ndaje la daal boo xam ne nag daal nag daal foo ko nag natta si rek daal njëriñ daal dina ko weesu naa bi nga xam ne waxtaanee mbirum nag daal njàng ak li nga xam ne moo di daal njàngane lu ama am solo la te nag daal lii nag lu ñu war di nag daal gën a amal bu ñu wala sax lu ñu war di gën a bari bu ñu sukkandeko si moom ki ñu xamee si Mick Alfonso euh, dina ko daal ab advisor wala ab xeltukat si rek Commonwealth of Learning. ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar li nga xam ne moo di këri liggéeykaay bu mag boobu di yëngu si wàllub jokko ak jokkalante di rek daal kiwsel ñoom nag daal am na nag lu bees loo xam ne génne nañ ko daal di ko jagleel. ñi nga xam ne eh, ñooy war a dem nag daal aji ji di war a dem si rek réew mu moom moomu di rek Saudi Arabia dem war a tamit tamit si rek dëkk yu sell di rek daal Makka ak daal Madina eh, pour rek daal yombalal leen seen wàllub li nga xam ne moo di jokkoo ak li nga xam ne eh, moo di daal jokkalante bett na daal li nga xam ne moom nag lañ nag daal di jagleel ñi nga xam ne ñoo di daal ujaa ci daal mooy nag daal ab nag daal euh, mbir moo xam daal fa tax na daal ñu mën a nag daal di jokko ak seen ay mbokk euh, buñ nag demee si li nga xam ne moo di daal dëkk yu sell yu di rek daal Makka ak Medina euh, du Bari nga xam ne moom corporate sales supervisor la si Qcell Euh, daal dina wane ne nag lii nag daal ab nag um, xalaat la boo xam ne sax ki nga xam ne euh, si xelam la mbir mi génnee mooy ki nga xam ne moo di Q Group chairman di Mohamed Jah moom nag daal euh, moo daal di xalaat li nga xam ne moo di mbir mi ne daal ñi nga xam ne ñoo di ujaa ci war a dem si li nga xam ne moo di dëkk bu sell bu di Makka ak Medina buñ demee daal war nañ di jokko ak li nga xam ne moo di daal seeni ay am di jàmm te nag loolu pour rek daal ñu am mun ko am faaw nag daal lu ci wàllu jokk ak jokkalante ñu nag daal di leen ko nag daal di yombalal ba tara moom Mister bari daal dina wax ne daal euh, bi nga xamee daal ki nga xam ne moo di kilifa gu mag gi nag daal jox na leen li nga xam ne moo di xalaat bi nag jàpp ne daal ñu nag daal war a nag daal di amal euh, fexe nag daal jokko ak jokkalante mun nag di nag yomba si li nga xam ne moo di ujaaceeg ñi nga xam ne ñoo seen ay mbokk yi nga xam ne ñoom la ñoo bàyyi si li nga xam ne moo di daal gannaaw bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne euh, moo di daal ay kàddoom mu nag daal di wax ne nag mbir mi daal daanaka dafa am ay sim cards yoo xam ne moom la ñoo jëkkale li nga xam ne moo di ujaa ci ay sim cards la yo xam ne dinañ am lool ñu xamee si ay GB internet am tamit 15 minutes commune and out uh, outgoing call ak tamit 50 uh, SMS te da nga wax ne lii euh, daanaka ab nag euh, mbir la moo xam ne daal daanaka fépp foo xam ne daal nekk nañ ko si rek dëkk yu sell yooyu nag dinañ mun di jokkoo ak li nga xam ne moo di seen ay mbokk ak li nga xam ne euh, moo di daal seen ay am di ak li nga xam ne moo di daal jàmm moom Mr bari Barry corporate sales supervisor at QCell mu nag continuer tamit ne wax ne li nga xam ne sax daal moo di nag daal li leen mbir mi di dikkee ñoom ñi nga xam ne ñooy war a am sim card si daal daanaka du nag daal bari dara naa bi nga xamee ne dafa gën a yombal seen nag mbirum li xam ne moo di jokko ak li nga xam ne moo di daal jokkalante gannaaw bi nga euh, pour rek daal mun a am loolu yëpp rek daal liñ nag liñ nag li ñoo joxe si koppa rek dina war a toll c'est daal ñaari junne ak juróomi téeméer yi euh, ñaari junne ak juróomi téeméer si koppar li nga xam ne euh, moo di daal dalasi su ko defee rek ñoom ñi nga xam ne ñoo di daal ujaaj ñu am nag am ab sim card boo xam ne daal dina mun a yombal seen nag wàllub jokko ak jokkalante bu fekkee daal yegg nañ ci xam ne moo di yu selo yi ak li xam ne moo di daal euh, Medina euh, mu ne nag daal di jokko ak li nga xam ne moo daal seen i daal mbokk xam ne mbir mi nag daal euh, pour rek ku si bu nga gën a am lu leer mun ngaa woote si rek one one one wala sax daal nga woo si three one zero zero eight eight two daal boo si nag daal wootee nag daal di nga gën a mun am lu leer si li nga xam ne moo aju nag daal si wàllu nag daal mbir mi nga xam ne moom lañ jagleel li nga xam ne ñoo di ujaaj ñi nga xam ne ñooy war a dem si rek daal dëkk bu sell boo di rek daal Makka ak Medina nga xam ak li nga xam ne moo di jokkalante bu fekkee ne euh, dem nañ ci rek dëkk yu sell yu di rek Makka ak Medina euh, mun nag di jokkoo ak seen ay am di jàmm yi nga xam ne ñoom la ñoo bàyyi gannaaw ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal euh, xibaar si rek ab nag daal euh, ndaje yoo xam ne ñu ngi koy amal doon nag amal ab taxaw seetlu lu aju nag si wàllu li nga xam ne moo di feebaru xel fexe nag daal li nga xam ne ñooy amee feebaru xel ñu nag di leen nag daal di euh, bàyyi xel nag daal bu baax a baax loolu nag daal waral na li nga xam ne moo di nag daal euh, li ñu xamee si di Women Boss Boss amal nag daal ab nag daal li nga xam ne moo daal ab football euh, maaj boo xam ne dañ ko jagleel li nga xam ne euh, moo di daal ndaw ñi nga xam ne daal daanaka dañ amee nag li nga xam ne Euh, mooy nag daal euh, jafe-jafe si li nga xam ne moo di daal wàll wu li nga xam ne moo di daal football match bi nag mu ngi dox si diggante woman boss health for the win series euh, lii nag dañ ko def pour rek daal gën a amal ab taxaw seetlu lu aju nag si rek wàllu bi nga xam ne moo di rek daal feebaru li nga xam ne moo di daal xel naka lañ ci nag daal war a gën a yeewee li nga xam ne moo di daal askan wi fexe nag daal mu doon loo xam ne la ñuy nag daal gën a bàyyi li nga xam ne moo di xel ki nga xam ne moo di founder nekk tamit président bu woman boss awa Awa euh, Marie Lo Kane moom nag wax na ne li ñu nag nemmeeku nag daal mooy daanaka li ñu nemmeeku mooy nag ay xale yu bari xale yu jigéen yu bëree bari daanaka léegi-léeg loolu ñu am loolu ñu xamee si di presse maanaam am nag daal loo xam ne dina nag am luy jiixi jaaxa si seen li nga xam ne moo di bopp maanaam nag daal am jafe-jafe di xalaat xalaat nag yu bëree bari nag daal loolu pour rek daal euh, gis ne dinañ ci nag indi ab saafara faaw nag daal ñu mel noonu euh, ñu di leen li nga xam ne li nga xam nag mbir mi nag daal di jéggi eh, loxo si seen yi li nga xam ne eh, moo di daal bopp nag sax loolu moo waral ñi nag amal ay nag yëngu-yëngu yoo xam ne dina tax nag daal eh, ñi nga xam ne ñu am façon ngi jafe-jafe yooyu ñu nag dugal ci li nga xam ne moo di nag daal yenn yëngu-yëngu yi ñu mun di fàtte li nga xam ne moom nag la ñoo xalaat ki nga xam ne moom lañ xamee si Sylvia Lorenza nga xam ne moom clinical psychologist la nekk tamit founder for peace of mind moom nag wax na li nga xam ne moom la ñoo def nekk daal lu ama am solo si ñi nga xam ne daanaka seeni xalaat day fay bari lool ñu di leen boole si li nga xam ne moodi daal biir askan wax na ne daanaka lii nag daal daanaka euh, daanaka lu ñu war a gën a yaatal te nag daal bokk si li nga xam ne moo di yëngu yi nga xam ne moo ñu amal mooy daal di amal li nga xam ne moo di ay euh, tàggat li nga xam ne moo di daal yaram ne rek loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne daanaka si rek xeetu indi ay saafara si li nga xam ne moo di wàlla woowu Eva Maria Lo ak ki ñu xamee si Aïssa Balde nga xam ne ñoom bokkoon na ci sax ñi nga xam ne Euh, ñoo doon bokkoon si li nga xam ne ñoo doon football amal li nga xam ne moo di yëngu-yëngu boobu ñoom nag wax nañu lii lu ama am euh, solo la loo xam ne dina tax nag daal euh, ñu mun nag di fàtte nag daal yu bare bari bu ñu sukkandikoo si ay kàddoom moom ki ñu xamee si rek daal Eva Marie Lo mu nag daal di wax daanaka di sax play li nga xam ne moo di football dina tax nag daal ngay mun di fàtte nag daal lu bare bare te tamit di nag daal yëngal sa yaram daanaka nag daal lu bare bari nag daal lay def si rek li nga xam ne moo di daal nit ki moom Aïssa Baldé mu nag daal di wax daal daanaka daje ak ñi nga xam ne ñoo di ay moromi xale yu jigéenam di nag daal euh, jëflante euh, di tamit nag daal euh, ah, di di fos si seen biir ne daal lu nag daal lu mu nag daal rafetlu la li nga xam ne moo di nag daal football game bi nag daal mu ngi doxoon ci diggante Starfish International ak tamit beneen li nga xam ne moo di daal nak daal team gannaaw bi nga xam ne daal daanaka nag daal mbir mi nag daal dañ ko nag daal di euh, ndar keppee si rek daal li nga xam ne moo di daal ay nag daal waxtaan yoo xam ne daal dox na si ñi nga xam ne ñoo teewoon li nga xam ne moo di yëngu-yëngu boobu si xibaar gu mujj gi askan wi nga xam ne ñoo dëkkee si diwaanu euh, Busuura euh, nekk nag ab dëkka dekkaan boo xam ne mu ngi fi ñu xamee si Marakisa Ward si suufi West Coast Region ñoom nag daal wane nañ ceen mbégte bi nga xam ne ñu ngi dalloo li nga xam ne moo di ab bu fajukaay boo xam ne ñu ngi leen ko defal seen i li nga xam ne moo di dëkk bu ak li nga xam ne moo di ab boxol boo xam ne gasaan nañ leen ko fa li nag ñu leen ko defal mooy Africa Relief and Community Development ñoo leen ko fa nag daal di defal si daal euh, njàppandalu ki ñu li nga xam ne mooy di National Assembly for Birkama North li nag daal ab mbir la moo xam ne ñoom askan wi rafetlu nañ ko gannaaw bi nga xam ne wax nañu daal jote as si bérébu fajukaay yi nag daal loolu leen soxal la jotee tamit si la nga xam ne moo di ndox mu sell daal mbir la mu am solo moo xam ne daal yàgg nañ ko nag daal di joytu bi nga xam ne daal am nañ ko nag daal ñoom nag loolu rafetlu nañu ko Baboucar Faye secrétaire général bu Buzuura Village Development Committee moom nag daal dina wane am nañ yaakaar ne bérébu fajukaay euh, boobu nag daal dina njëriñ li nga xam ne moo di daal askan wi ak ñi nga xam ne ñoo dëkkee si li nga xam ne moo di daal euh, diwaan waxtaan gi Aliou Faye alkali wala borom dëkk bu Busuura daal dina rafetlu li nga xam ne moo di eh, bérébu fajukaay bi waxtu bi nga xam ne moom lañ leen ko nag daal defaral foofu mu sant gërëm ñi nga xam ne ñoo leen ko fa nag daal defar eh, sant honorable Sané ak tamit eh, ñi nga xam ne ñoo di askan wi nga xam ne ñëpp nag daal daanaka nag daal def nañ ci li nga xam ne moo di daal seeni ab njàppandal Alhaji Kamara senior officer Africa Relief and Community for Development wax li nga xam ne moo di bi nag ñoom mbégte lañ am ante yi nga xam ne li nga xam ne nag daal defal nañ ko askan wi daal jàpp nañu daal euh, defaruñ ko askan wi rek waaye tamit nag nguur gi lañ ko defal gannaaw bi nga xam ne daal nguur gi mënuñoo def lépp te ñoom it jàpp nañ ne askan war nañoo jotee si li nga xam ne moo di wér gu yaram euh, wala sax béréb bu fajukaay boo xam ne daal euh, ñoom askan wi war nañ ci di si jotee Alaaji Sané nga xam ne moom Human Resource Manager la Ministry of Health moom nag nga xam ne moo fa teewalal Minister of Health mu ne daal mu ngeen nag rafetlu li nga xam ne moo di bérébu fajukaay boobu daal foofee fi nga xam ne fa lañ ko samp daal dina nag yombalal askan wi euh, seen wàllub li nga xam ne euh, moo di daal faj mu sant gërëm ñi nga xam ne euh, ñoo amal li nga xam ne moo di daal bérébu fajukaay boobu gannaaw bi nga xam ne wax na ne lii nag daal ñoom bunte bi nga xam ne ñoom lañ dénk wér gu yaram askan wi rafetlu nañu ko honorable Lamine J Sané nga xam ne euh, moom mooy euh, député bi toogal waa biir Kamassaaru si penjal ndawa réew mi moom it nag daal dina wax ne dak daal euh, dinañ nag daal fexe nag daal béré boobu tamit am li nga xam ne moo di ab béré boo xam ne dinañ koo jagleel ñi nga xam ne ñooy nag liggéey si li nga xam ne moo di daal béré boobu te tamit nag daal daanaka mbir mi yëpp mbir mi daal dinañ gën a nag daal di yaatal su ko defee li nga xam ne moo di askan wi dëkkee foofu na daal bañ nag daal di jigaani li nga xam ne moo daal ay béré bu fajukaay bu ñu sukkandeko